lépp lu ñu jàpp ne lu manqué woon la wax nañ ko. waaye euh, li ci am solo rek mooy euh, ci wàllu ndox mi euh, waxoon naa ko sànq fan yi weesu muy àllarba bi passé def nañ fi benn réunion bu mag boo xam ni directeur général OFOR a ngi fi woon ak kilifa yi nga xam ni ñoom ñoo ŋànk wàllu ndox mi yëpp. bi ñu ko defee jang diagnostiqué woon nañu problème bi xam problème bi lan la ba ñu jëloon fi ay décision décision yooyu tàmbali nañ leen a mettre en œuvre te gis nañu ni. wax dëgg yàlla fan yii ay retour yu bari maa ngi koy am yuy wax ñu may wax ni ma dëkk sàngam day ay at a ngi nii amul ndox wala ay weer a ngi nii amul ndox commencé na am ndox. am na forage yoo xam ne déjà raccordé nañ leen ci courant bi am na yoo xam ne nii teg nañ fa ay groupe en attendant que courant bi ñëw mais de toutes les manières situation bi moom ça s'est amélioré loolu moom ñëpp seetlu nañu ko te loolu lañuy ñuy continuer parce que li ñu nekk di ko def nii duñ ko wàññi dañ koy jëmale kanam ba fii Euh, chef de service bi jël na kàddu wax na ci loolu li nit ñi doon wax rek mooy ñu yokk poto yi def ay extension ak yooyu yooyu yëpp ñoom ñoo ngi ci woon dañ koy yokk rek fekk màggal gi bu soobee yàlla yaakaar naa ni euh, fépp fu war a am courant dina ko am euh, beneen bi nga xam ne nii aussi ñoo ngi ko doon ñaan mooy ñu moytu coupure am fi mise hors délestage loolu Senelec wax na ni d'accord na ci dina def ñaar fukki fan yoo xam nii Euh, en tout cas ci avant ak euh, après magal gi ci digg bi magal gi mu nekk ci digg bi fukki fan avant ak fukki fan après ba nga xam ni coupure du ci am ba muy mën a indi ay perturbation même ci euh, distribution ndox mi